nuyu madame la directrice de SICAN maa ngi nuyu directeurs généraux yi fi teew yëpp directeurs nationaux yi chef de service chef de programme conseil technique des différents ministères nuyu aussi les inspecteurs d'académie mais aussi les directeurs d'établissement ak invités yi fi nekk yëpp wax bu baax sama mbégte tey teew fii ci ñuy lancer programme bu bees bii nga xam ne ñu ngi ko tuddee mille femmes mille femmes mooy junni femmes programme bi ni ko waxee léegi dafay dugg ci priorité président de la république son excellence makisal bi nga xam ni ci plan émergent daf ci am axe bu am solo bu ñu tuddee capital humain te président de la république jox ci programme boobu jigéen place bu baax maa ngi koy wax léegi ci nasaraan téeméer boo jël ci Sénégal juróom fukki ak ñaar ay jigéen lañ donc programme bi ñu tuddee 1000 femmes dafay dugg ci biir programme boobu junni femme nag bu ñu ko waxee mooy programme bi dafa bëgg tàggat junni femme ci juróom-ñaari région yi max li junni femme yoo xam ne dañu bëgg ñu nekk ay championne ci wàll formation mais aussi ci wàllu autonomisation de manière générale loolu moo tax ñu ànd ci ak affaire mondiale Canada ak SICAN ñu leen di sant bu baax ci accompagnement boobu moo tax ñu jàpp ne programme bi am na solo parce que émergence bii ñu jëm à l'horizon 2035 mënuñu ko def sans les femmes kon bokk junni femmes ci juróom-ñaari région du lu du lu néew donc may wax rekk ne rafetlu naa bu baax ñi nga xam ni ñoo fi teew ci chef de projet ci direct ci ministère ci direction mais aussi les structures décentralisées cordinatrice wax na ko mënuñu rekk tàggat junni femmes ci Sénégal yóbbu leen ci autonomisation def leen ay championne bu fekkente ne benn ministère de la formation professionnelle rek moo koy gàddu dafay aajo liggéey en synergie loolu tax ma bëgg a sant bu baax sama collègue madame la ministre Zahra Iyane Thiam ci teewaayam ak sama yeneen collègues yi nga xam ni seen agenda moo tax teewuñu fi yónnee fii ay représentants may wax ne programme bi toll na ci juróom-ñetti milliards ci suñu xaalis ñu ànd ci ak gouvernement Canada li ma waxoon bi ñuy tëgg programme bi rek. duñ ko def li ñuy tuddee saupoudrage junni bëri na bëriwul mais dañu bëgg su programme bi jeexee ci juróom-ñaari région yooyu nga xam ni wax naa ko ñu am ci junni femmes yoo xam ni ay kàngam lañ ay champion lañ ci li ñu nekk ba mën a ku ci nekk ci ñoom mën a xëccaat lu tolloog junni femmes kon boog maa ngi félicité bu baax waa projet bi di remercier au nom du président de la République au nom tout le gouvernement sénégalais le gouvernement canadien su ci accompagnement bi nga xam ni def nañu ko may wax rek ne tey dañ koy ubbi solennellement mais suñu jógee ci lii travail technique bi day continuer may ñaan seen teewaay bu rafet bi ci diversité structure yi nga xam nekk nañ fi ñu continuer ko noonu ci projet bi pour que résultat yi nga xam ni yéene nañ ko ci ñu am ko ci may rafetlu bu baax aussi euh, président de la république taxawal projet bu mag boobu ñu tuddee ko xëyu ndaw ñi jaarale ko ci pôle emploi entrepreneuriat des femmes des jeunes et lépp lu ngeen di xam ni yéen nga koy def ci projet bi buntu d'entrée bi mooy euh, pôle emploi entrepreneuriat ci région d'intervention yi kon bokk ñu ngi déclarer officiellement lancer projet boobu di leen féliciter di leen remercier mais aussi que ñu gën a continuer ci taxawaay bi ni au quotidien avec tous les acteurs concernés pour que résultats yi nga xam ni yaakaar nañ ko ci projet bi am solo bi ñu am ko ci maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf ñi ngi bëgg euh, si ndaje tey bi nga xamante ni mooy euh, tàmbalik euh, projet 1000 femmes projet la boo xamante ni day dimbali jigéen yi nga xamante ni ñi ngi Sénégal ñi leen di dimbali si wàllu économie di leen dimbali si wàllu social mais aussi di leen dimbali si wàllu politique mi ngi intervenir si sept région si biir Sénégal affaire mondiales Canada moo ko financé Collège et Institut Canada mooy euh, maître d'œuvre bi ñi ngi ko logé au sein du ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion femme bi euh, projet bi mi nga bëgg laal femmes yi nga xamante ni ñoo gën a ndóol ci Sénégal xam ngeen ni Sénégal li am Kédougou bokkul ak li am Diourbel bokkul ak li am Ziguinchor ci région bu nekk am na ay études yu ñu def yoo xamante ni ñi ngi ñuy définiral